yéegee ci kaw bi xaw ma barki démb nee na. Hmm. suñu wàllum koom daal moo ji. fu mu nekk Sénégal namul dara. fu mu nekk Sénégal moom liggéey nag fi liggéey boo xam ne koppar baa ngi fi xam naa ne koppar bee circulé wul waaye koppar baa ngi fi yéen a kaay groupe des médias naka déet kaay yóbbu la baar ban Sénégal ngay wax. parce que fii réew mi toll ñun ñii. Ah, franchement koy dund xam nañ ne Sénégal gii de metti na. est-ce que Bousquier mu ngi ci Sénégal bi ñu nekk nii wala Sénégal bi nekk fan rek bi ngeen doon fan Tchad. waaw Tchad. ah. Mhm. yéen a kaay bi ne nag ban Sénégal ngay wax est-ce que réeroo it est-ce ci beneen Sénégal ndax fi mu toll nii góorgóorlu yi maanaam consommateur yi duute leen ni bëgg leen di dagg rek di leen CNG waaye terewul gisuñu seen bopp loo jënd yokk nañ ko. njaboot yi moom wax fa dëgg neex yàlla dund goba jaas am na ci kër yu bari yu nga xam ne ndéeg añ reer ñetti doomi tedd naa ni kenn makaleetu ko. dangay da ngay gérer ndékki tëbal añ wala nga tëbal ndékki nga jox ko xale yu ndaw yi rek ñu di leen école nga jox leen ñu ndékki te léegi nag euh, euh, añ bi nga dëbb dëbbal ko reer bi ku nekk débrouillé ñu ne fii la réew toll wala nga togg togg añ tubb ci reer mooy gobat jaas ñu mm-hmm. ne fii la toll am na si ñoo xam ne moom ñetti doomu pend naar yi am ñu si benn léegi moom mënu euh, ñetti doomu pend naar yi boo ci am luxe la maanaam tey moom boo ci dalee moom nga togg añ luxe la yéene kaay wax ba tey de du man tribune yéene kaay nee na Bousquier nag yow mi ñu dénk wàllum koom gi xoolaatal ban réew nga ne yéene kaay bi dikk di ko dëggal nee na góor yi fu mu nekk ni boo moytuwul dinañ daj lu mburu daj sa taal ba te mburu la mu daj sa taal ba moo tax ñu ne tey jii soo moytu dañu koy yokk ndax lakk mburu mi daa soo moytuwul dinañ ci teg cinquante francs ñoo mënoon nañ yokk ñetti dërëm wala ñaari dërëm wala juróomi dërëm ah ah mburu 175 kilo mburu 175. kilo mburu ñaata lay jox. ñu ngi nii hausse annoncée du prix du pain góorgóorlu encore roulé dans la farine ndax ñoom boulanger yi seen bëgg-bëgg moo di ñu yokk jëgal mburu bi kilo bi 50 francs ce qui veut dire que 275 lay jar benn baguette mburu déjà mburu mi rek oyof na oyof. boo xam ne boo ko xoolee vraiment cher arrêté leen quoi boo ko xoolee mën nga ci lekk ñaari kilo wala ñetti kilo soom bi neex na. ah sombi mbokk am na ah ak lan. ñu xam gerte am na. yooyu noonu yëpp am na. waaw fonde neex na ba bëgg a am na ah. ah? dañuy ubbi biir ki nekk doo Fabrice doo ko jox ay laaj sànqal ay fond yooyu noonu yëpp mais nañu def croissant dugub croissant dugub baax man waaw ay pain dugub loolu ca mën naa am mais arrêté la en tout cas fu mu nekk nii les boulangers nee na cinquante francs la ñu bëgg yokk ci njëgal mburu bu yàggee ñu bàyyi mburu de où est passé le gouvernement de combat censé lutter contre la vie chère gouvernement bees bi combat la dañ ci yokk rek mission waaye léegi combat bi mooy ban xeetu combat ka la ñuy laaj ndax Amadou Bakar ba mu fi njëkk a samp nekk eh, inimaani jëriñ ñi dane gouvernement de combat laa woote xeex ak dundu gu cher bi njëkk yu cher yi waaye xeex boobee daf mel daf saa ji tey jii nag kaay bi nee na waaye yow gouvernement bi doon xeex anam <laughs> wala xeex bi boog daf see juum ban xeex lay façon xeex ban façon xeex lay xeex les dirigeants sont aujourd'hui aux abonnés absents talu ñu ko ne ñu uti di signature parrainage gis nga nag bu bu ubbi mais pas nag bu ubbiwul gët bu baax hmm. dana il va être euh, comptable il va être pris comme euh, il va prendre le poids de la malgouvernance du régime actuel ci si ndoddam na def très attention. na def nànk rek na def très attention mais ku la wax ne régime actuel dafa am mal gouvernement. waaw parce que sénégalais yaa ngi ñaxtu ñoo ngi ni di wax waxu xiif ak waxum yokkute ak yooyu noonu. mais bu fekkee dañoo gouverner normalement mais daan sénégalais am na sénégalais ñoo wax ne. waaw boo bëggee sax bu baax. waaw am na sénégalais bu ne Modji. Modji ah déet bu ne sax ñan ñoo wax Modji Sénégal lañ. ah si ah, yaa daal ñu ne en message. man laa fu mu nekk nii xaalis am na. ban ci moom arrêté waay <laughs> xaalis baa ngi ci ci kan. waaw xaalis baa ngi kii léegi ci kan ci <laughs> yi nekk ci téléphone portable bi bëgguma wax waaw waaw. xaalis amul yi ci réseau yi nekk ci téléphone yi. Eh? te madame Ba jigéen yi ñu ngi may kopp. waaw xaalis amul xaalis amul mais gis nga portable bi ñu ne ñoom yaa fi di yor mooy deux ay portable un million. mais dañuy liggéey dañuy ay oto yi nga xam ne nii. macha allah uti naa sama. calendrier bi soixante-dixième anniversaire am naa soixante-dixième anniversaire waaw. grand bi soxna Diop xaalis amul mais yéen a dem ci xew yi di baatre. waaw mais <laughs> ah, na nañ waxante ne ma doon li gars yi mere mag yëpp dañ ko hmm. na am na ko mere ko bëgg it. waaw ah, fi mu daal dikk <laughs> ci récusation mais ndekete dañoo du Sénégal de dire Sonko reprend sa jet. waaw ndax ndax dañu waxoon ne dañu koy dañ euh, euh, euh, mbirum sabali moom mais dañu ko koy toppee waaw Pape Bokar nee na moom ci boppam xaalis am na. Ah. ku ne def. li sa poos antan. rek nag. moom dëgg nag. waaw parce que y' a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. c'est ça muy paraître bi rek sonal ñu witt. daal te daal xaalis xaalis daal ngeen woote kan moo fi yoon xaalis ku bëgg a la fekk. am naa si dara. waaw waaw kii wala na boo ci amoon saako du ma teree nelaw. waay walaay dëgg ba tey baax na. xaalis daal moom wax fa dëgg loo ci am doyul. waaye dafa amul sax nag. déggoo yëpp xotteeku sax waaye na nga am rek. amul de. emploi des jeunes cherté la vie croissance économique la la gageure. de Daouda Doudou Ka. la gageure. la gageure. la gageure. ah oui. kon maa ngi ñoo yem. ñoo yem sikk. dégguma de. gageure. <laughs> waaw ñu eh, ne eh, gageure. ah. waaw liiral comme tu veux gageure d'accord liiral gageure. <laughs> liiral gageure. <laughs> <laughs> résoudre le problème de l'emploi des jeunes et arrêter la saignée de l'immigration clandestine ah réduire les souffrances des Sénégalais rayer donc le Sénégal de la liste des pays des moins avancés ah, en tout cas loolu mooy bëgg-bëgg objectif u Doudou Ka c'est pour ça eh, la gage la gage waaw boobu moo gën a noppale nag. moo gën a eh, ba nga xam ne daanaka lu dugg tigi joxe na ko. Cheikh Abdou Mbacke Baara Dolli coalition nekkal fi askan wi nee na neexul ba neex waaye boo wéru candidat bi gën a clean. <laughs> mooy wax de. j'ai déposé une proposition de loi pour une lan caution avant le retrait des fiches de parrainage loolu moom dëgg la loolu sax moo gënoon pour que laa jël sa fiche boobee ah nga joxe xaalis. ba noppi. mais nag malheureusement. xaalis amul. moo tax it ñoo ngi nekk dans <laughs> presque trois cent candidats Ramatoulaye journaliste nee na. Hmm. ça se lit gageure. gageure mais su nekk journaliste ku si nekk xaw mu ngi koy xool nu mu koy nuyu. xoolal journaliste gageure ki ne lan gageure yow nga ne lan. gëgër gëgër dañu wax lu ñu xam ñun gëgër. Ousmane Sonko doit recouvrer la liberté loolee Abdou Mbacké Bara Dolly moom moo ko xam ne. moom nag wax na. je sais pas si elle a été Khalifa Sall Barthélémy Diaz uyu leen. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nee na taxawu Sénégal nag. gageure c'est du français. c'est la gageure. donc ñun ñett yëpp a yem. donc ñun defuñu erreur. très bien ndax yow kon defuñu erreur. non non gageure. gageure voilà parce que j'ai dit gageure non gageure j'ai dit. moi très bien en tout cas bu ñu ci wax. c'est la gageure. mais taxawu voulait intégrer le groupe de Wallu et j'ai opposé. no veto. wuyu leen fii on fii wuyu waa taxaw. député waa taxaw. coow li coow li coow li moo di moom waa wàllu la ñu bëggoon intégré wax ji wax ji wax ji mooy certificat de divorce bañ doon xotti jee sa assemblée nationale wàllu mi nekkoon témoin ñoom li ñuy xotti yëpp ndekete ñu ngi tëj bët ca wàllu waa taxaw Sénégal waxuma kan nag Cheikh Abdou Mbacke Baara Doole. dañ doon piis. ñu ngi doon def clé day di piis. waa wàllu. prévisible. te moom l'honorable député Mame Diarra Fam xam nga lu tax c'était prévisible l'intercoalition bi mu amee ñoom ñoo ko woote woon ñu waa taxaw. ñoom ñoo ko marché Mbacke Baara doole dina mukk du sa dal yéen kay dem leen rek foo leen xam dem leen. Hmm? fii moom du mën a ne yéen tas ngeen uti leen feneen foo leen dugg waaye du fii ñu ñu turee jamono joojee mu ngay wër mu ngay wër euh, euh, Diaobé Kolda Moussori Soulabaali département bu Médina Yoro Foulah mu ngay wër de ma nga ca utum parrainage ba moom ci boppam ni mu ture ana l'observateur foofee it Abdou Mbow wax na ci waa taxaw fu mu nekk taxaw daa mel ni ñooy dañ de Abdou Mbow nee na nous avons proposé un poste de vice-président à taxawu mais ils ont décliné l'offre kon taxaw fu mu nekk nii daal lii ngi xëcc fii nii di bañ fee léegi ñoom bu fekkee dañ bëggoon dugg wàllu ñu bañ ñu proposé leen fii ci biir benn bokk yaakaar lu ñu wax. RT sociale hmm? ñu bañ. donc yéen waa taxaw am na ku leen xëcc ci boor bi yéen ngeen bañ jamono joojee nag wàllum hydrocarbure yokku tey pareegul de. yokku tey pareegul de Moustapha Ba waxati na ministre des finances sur la vie chère <laughs> la crise de l'emploi et la subvention à l'énergie mm. les grandes annonces du ministre de l'économie et les nouvelles assurances du directeur général de la Sénélec yàlla baax na yàlla baax na wàllum Sénélec boobee Pape euh, Pape Demba Biteye d'indemnité chantier West Africa Energy bi nga xam ne moo nekk sa centrale bu Cap de Biche nee nañu nag neexul ba neex waaye janvier suñu première mégawatt nga xam ne ay sénégalais centrale bu sénégalais ñoo ko seen xaalis bopp ko euh, courant ba kon foofu lay war a mën a génne. Mhm. kon mais diñ Sénégal lay doon. incha allah janvier bi boo ñu waajal ko xam ne lii lii jar na ay félicitations. jar na ay félicitations l'exclusive ñëw ci passation de service sa ministère bi ñu dénk wàllum com plan ak coopération Moulimata Sarr xamal ne Doudou Ka nekk maa ngi lay jox ministère boo xam ne li ma ci liggéey loolu kenn naanu koo naataable li ma fa def ci ay jéego umpul kenn bilan bu am solo daal la tegal. koppar yu sakkan yi nga xam ne daanaka jot naa ko fa bàyyi moom li ma tasaat mu ngi koy xam ne un bilan élogieux en chiffres avec 69 conventions pour milliards 59 du PPP avec milliards grand place di ko dëggal ministre de l'économie Oulimata Sarr nii kon bu fekkoon ay résultats rek. def na ko def na ko. Hmm. kon nag lan moo tax ñu tekki ndombal tànkam. ñàkk base politique. Ah, waaw kon outil base. moo amul base <laughs> réew mi nekk boo amul base boo amul base gars yi da ngay tëb. technocrate la. Hmm? Sud Quotidien ñëw ci la diggu tigi organisation de la présidentielle 2024 xam nga ne société civile bi ak ñenn ci opposition dañoo taxawoon ne Sidi Kaba mii ñu tànn wóoluwuñu ko. démb nag ba mu jëlee kàddu jàkkaarloo naa ñoom wax na leen ay wax yu daal seen xel. fii nag mën nañ ko lire gage. ah moom wax moom mën na ko. ah Sidi Kaba moom boo waxee ma fex ba doo ko déglu. mais de faire en sorte que la présidentielle soit tenue dans les meilleures conditions possibles qu'elle se passe dans des conditions démocratiques libres en tout cas lii mooy combat bi nga xam ne moom dana ko mën ay élections yi tëddee ñaaxaanaay njuuj njaaj du fi am askan wi dem voté si jàmm dikkaat si jàmm ñu ne déetewaay mu ne déddi des urnes urnes Mhm. maanaam nañu voté. le choix du peuple le choix du peuple sénégalais. maanaam askan wa dem voté ak kañu voté. aywa sera respecté. Uh-huh. très bien très bien. nee na. la mhm. ngeen voté seen ko seen bañ gàcce. Mhm. ñu génn ko wàññi ko. aywa ñu xam ne askan wi nii la ñu voté. la ñuy publier la ñuy siwate koy respecté. il est transparent il est crédible pour le duguti gi moo wax loolu. il est démb ba jox lenga kii nga xam ne. moo di Antoine Félix Diome. merci ñoo ñu dénk pétrole léegi. merci merci ah, balaa nga dem merci doo dem Odia. merci beaucoup Odia ngi noonu ñu jeexale ko. Ah. <laughs> Odia fu mu nekk gaañaa ngi ci utum parrainage ba jamono ji nga xam ne Ousmane Sonko tàmbaliwaat na li nga xam ne moom moo di xiifal bi pavillon spécial kii di Pape Pdef. Pape Ibrahima moom dem na di wuti ay parrainage ñu nekk demal nga toog revient plus tard il est à nouveau en grève de la faim Khalifa Sall kii di Abdourahmane Diouf awale ñëw na tamit ne ko dama lay nemmeeku ci rek utum parrainage mu ne que j'ai dit que je ne suis pas là et tu dis que tu ne me crois pas je ne suis pas las la je ne suis pas las, las voilà et tu dis que tu ne tu ne pas mm-hmm. waaw nga dëgg je ne suis pas las alors lu gën mu ngoog yéen bi tey foofu la ñu génne Guy Odia jërëjëf Pape Gorgui Anna Ndoye ay message su ne laay jot la jëkkër a bés moo di Ousmane Sonko ma nga xam ne soobuwaat na ci xiifal ga maître euh, Ciré Clédor Ly kenn ci avocat di ko euh, dëggal président beeg si Pastef door na ko kon ni ki rek démb 17h ba mu jotee en tout cas xibaar boobee la ñu jot la muy ñaawlu moo di violation yi nga xam ne dañu ko def ci akam ak yelleefam rawatina ña nga xam ne ñoom la ñu jàppandool ay droit politique am ñu daal di koy salfañe loolee dañ si dikk ci bi la jotaay xibaar mat na sëkk nag maître toog na ci jàll bi nekk ministre de l' intérieur ñu dénk ko biir réew mi yëkkati na fa ay kàddu ngir dalal xel opposition beeg société civile bi nee na jël na engagement ngir ñu mën a organiser ay pré euh, élection présidentielle yu tëddee ñaaxaanaay ba benn ak njuuj njaaj daan waxtaane it yokkuteeg njëgal mburu mi fukki dërëm la ci boulanger yi di sàkku ñu daal di ko si yokk démb lañ ko xam ne si janox taskatu xibaar yi bu fekkee loolu antuwul dàq ñu benn yoon daal di sóobu ci ak yëngu-yëngal maanaam grève bu du sax dàkk tàggat yaram yenn a kaay xëy da xëñ moo koy ndar képp ngeen taaxirlu ñu xuus si faram gi yaax si ma fay.